ñun nag tey dañ fee amoon ndaje moo xamante ni dañ ñëwoon dañ woo journaliste yi jébbal ko askan wi suñuy ay nakar, ak suñu ay tolof tolof yi nga xamante ni ñun boutique détaillant yi ñu ngi koy am saa su nekk dañ fee daje woon ñaar fukki fan ak juróom ci weeru avril ba ñu fi dajee euh, ñu woo chef directeur du commerce chefu euh, direction du commerce muy jaww keroog bi mu dikkee sax moom lañu jox ni ko ah yow yaay doon modérateur bi ñu invité chefu service d'hygiène mu ñëw monsieur le maire Talla Sylla euh, ñu invité président chambre de commerce waa UNACOIS am nañ ku leen fi teewaloon ak waa ASCOSEN honorable député Hélène ñëwoon na bay daxa kante ak ñu bëree bëree bëri kilifa yi dëkk bi yépp ñëwoon nañu euh, bi ñu ñëwee ñu ni woon ñu ñun kat lii ngeen ñu wax muy seen ay naqar ak seen ay tolof tolof dinañ ci sàkk pexe waaye boobu ba tey dara amu ci ah ginnaaw loolu ñun tamit solaat nañ suñu dàll dem nañ ba ci kilifa contrôle économique demaat ci kilifa service d'hygiène ñi ñu ko seqal ak kilifa yu bëri bi ñu demee waxtaan solaat suñ daal dem ba ci ñoom ni leen kat wax dëgg yàlla bëgg nañu saafara ci mbir yi waaye ñoom dañoo mel nañu gumba tax luur dégguñu ñu ah ginnaaw loolu nga xamante ni tout temps léegi service d'hygiène contrôle économique dañuy dëkk ci suñu boutique yi dañu teg ay jafe-jafe yoo xamante ni yu mën a ñàkk la di nangu suñu ay bagage di ko saisir ci loo xamante ni lu mën a la parce que ñun ay citoyen lañu tey boo convoqué nit ki malgré jàpp nga ko sax mais wuroo dikk di ko jéem a toroxal ci biir askan bi am nañu tamit problème sécurité boo xamante ni bërki dem boo njaay euh, gis ngeen suñu mbokk mi nga xamante ni na ci kër isaa saw ah, wax dëgg yàlla ni ko def def nañu ko mi nga ngi euh, def ko ak Eh, keroog suñu mbokk mi ne kër Issa ñetti bali fital yi ñu ko dóor ba am kuñ fa blessé bal bi ci la bokk léegi lañ ñu ko jox eh, kon loolu daal bëggoon nañu wax dëgg yàlla ñëpp eh, jël ci ay matuwaay bi ginnaaw loolu tamit bind nañu lettre gouverneur boobu ba tey moom tamit ñu ngi ko déglu ah wax dëgg yàlla kon que kilifa la boo xam ne moom la yàlla teg ci dëkk bi mu yilif dëkk bi ah boobu ba tey dégguñu déggaguñ ko ci waaye ñu ngi ko ciy déglu xañ ne dañoo xamagul lan moo tax moom mënagu cee joxe benn benn kiyam mais en tout cas daal bind nañu ko ñu ngi koy déglu ah boo partee nag kuréel gi tamit daal di taxaw ah daal di dem ci autorités yu bëree bëree bëri nga xamante ni tey jii nii ñu ngi ñuy harcelé di saisir suñu ay bagage ah, ñun nag bis bi nga xam loolu boole seen yooyu yépp nag moo waraloon kuréel gi daal di woo membre mi nga xam ne ñoo nekk bàyyi koo fi mu nii ñi ngay gis ci gox bu nekk ci biir Thiès. ah ñu ni leen woon nag bi ñu tënkee ba pare ñu ni wax dëgg yàlla am na xibaar boo xam ne dinañu ko jébbal askanu Thiès du xibaar boo xam ne nag bu ñu neex la ndax ñu ak askan wi comme ni ñu ko waxee woon ñun ñooy ñoom ñoom ñooy ñun askan wi bu weer wi soree ñun ñoo leen di jox lu ñu yóbbu seen kër di ko togg keneen joxu leen ko ñun gaz bu diisee ñoo koy jënd di ko lebal askan wi ñooy jëflante ak askan wi te bu sàcc si jógee dugg ci suñu biir bitig yi di ñu agressé contrôle bu dikkee dugg ci suñu biir bitig yi bindal ñu ay factures yoo xamante ni sax ñun dalul suñu xel factures yooyu xam naa ne après dinañ ci wax ah looloo taxoon nag mboole seen jafe-jafe yooyu yépp ñu ne nag ñun dinañu tëj suñu ay bitig euh, euh, altine fukki fan ak ñeent ci weeru euh, septembre ak fukki fan ak juróom dinañu tëj suñu ay bitig def rassemblement bu mag promenade Thiessois bu boobaa président Macky Sall mi nga xam ne moom la yàlla teg ci bopp réew mi mu bu daal ñuy mën a jox liggéey kon ko ñun ay ndaw lañu te li ñuy liggéey nee nañu baaxul bu boobaa dinañu jox suñu liggéey bañuñu ci dara nag asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu sant tëj googu ñun ñu ngi def parce que ba ñu ci dajee le vingt cinq avril yàlla xam na ko ñun tiis bi ñu am sax ci loolu ñu nar a def noonu ak ak ak ak mettit bi nga xam ne ñun metti na ko. mënu koo metti autorité mënu koo metti kenn parce que Babacar xamoo ni boutiquier dafa jaxasoo ak askan dañ ni booy laaj dara ci koñ demal ci boutiquier boutiquier moo xam jafe-jafe nit ñu bëree bëree bëri moom mooy wallu tamit lu bëree bëri nit togg ba teg ba seppi dikk daa ne la oma ceeb bu ma sóor xolol xolol xolol mettit boobu ah yow loolu dafa tiis li ci nekk lépp ñun mënuñu leen koo wax yàlla xam na ko nga xamante ni ñun sax dinañu tëj bitig yi bu boobaa nga xamante ni askan bi ñun suñu jëmmi bopp barke rasulullah ñun dinañ am yërmande ju rëy rëy suñu diggante ak ñoom mais bu fekkente ni ñun saa su nekk ñu ngi dëkk suñu alal ko nangu ci loo xamante ni dem nañ ba amatuñu pexe amatuñu solution ñun li ñu man a def moo ñu tëj suñu ay bitig vraiment ñun am nañ yërmande ju rëy rëy rëy rëy suñu diggante ak askan bi parce que ñun ñoo leen lebal ñun ñoo yëkkati lépp loo xamante ni soxla nañu ko ñu jox leen ko kon ñun bu fekkee tëj nañ suñu ay bitig c'est sûr que am na ñoo xam ne jour boobu ñu añ dañuy dañuy dañuy fadde wala ñu bëgg a jënd bagage dañ ko mën a jënd te amuñu dara loo xamante ne ñun ñoo yëkkati di leen ko lebal ñun mosuñoo taxaw tribunal du yóbbu client police te suñu kay ay bor kese la kon lu mel noonu nag état war a cee bàyyi xel carrément ba nga xamante ni bu lu mel noonu bu mu ko nangooti kenn dañu ko def ñun waruñoo nangu loolu ñun nag bëgguñu ko vraiment mais tamit ñàkk pexe mooy waral ñu def loolu kon ñun il faut loolu ñun dinañu ko def

biti gi moo tax léegi koñ bu ñu dugg presque pratiquement ñëpp daw tëj parce que ñoom it am nañu yërmande ci ñun parce que xam nañ ne li ñuy teg jaaduwul mais tey bu dikkee sama bitig balaa ak bitigu kay ñooy daw signalé koñ yëpp ni tëj leen seen bitig yi kon loolu noonu kon askan mi tamit ñun ñu ngi leen di jéggalu ñoom xam nañ sax ñun buñ dee tëj suñu ay boutique du dañ ko bëgg a tëj ngir jéem leen a lottal wala bañ leen a sonn mais xëy na jafe-jafe ko def te dinañ déedéet bu ñu tëjee boutique bu ñu tëjee boutique dañuy def rassemblement bu mag promenade Thiessois promenade Thiessois la ñuy def rassemblement bu mag a mag mag a mag ah wax dëgg yàlla comme que ñun li ñuy liggéey baaxul njiitum réew mi daal dañuy mën jox liggéey rek président ñuy jox liggéey bu ko defee ñun ñu bàyyi bitik dem mu jox ñu leneen ñu liggéey ko bu jour boobaa moom suñu stratégie moom amul kenn kuy tëj toog ci kër parce que bu boobaa dina tax nga dem jox nit te du war ñuy dem promenade fa ji bu ko defee njiitum réew mi dina yëg loolu xam na ñun ay doomi réew mi lañu mu mën a saafara suñu ay jafe-jafe ba ger nga xamante ni xam nga ni rosi yi ñu ñuy bindal di ñu ko jox saa su ne lii jaadu loo xamante ni nit a koy téere ci machine am jox la ko te war a am lii man fayloo nañ la fanweeri junni yoo xamante nii ah, boo dikkee yow mënoo ci dara fi mu ne ni ñii ñëpp ku ci nekk da ngaa am koo ci laaj fi mu ne ni mu ngi jafe-jafe yoo xam dafa xamul fan la koy jooyee ah, jël lii di ko fayloo nit bitig bu ne 10 000 10 loolu ci boppam lañ bëgg état te tey nag dinañ porter plainte OFNAC suñu plainte bind nañ ko dinañ ko yóbbu OFNAC lii moom fa mu war a àgg dinañ ko fa àggale bañuñu ci dara ragaluñu ci dara parce que ñun suñu doole la ñuy daal sant boutiquier yépp di leen wax tamit ni leen na gën a takku gën a taxaw gën a bokk ndey gën a bokk baay ah dama mbooloo mooy doole bu ñu ko defee defe naa ni lu bëree bëree bëri dina wàññeeku te it nag na ngeen sàmmonteeg ak bagage bu périmé ci bitig yi comme niñ koy defee saa su ne réunion na ngeen maytu bagage bu ngeen wut tamit médical kooku moom na ko boutique yépp di wut bagage yi bu bëggee périmé ñun bëgg nañ sax kuréel gi bu demee ba ca kanam a kanam a kanam nga xam ne dañuy def bagage bu bëgg a périmé dans un mois dañuy def récupérer yooyu yépp yéppal ko lu mel ni prison yi wala hôpital yi dimbalee leen ko nga xam ne duñ ko wax wàcc muy niil wala muy yàqu loola nag ci dal lañ ko mën a defe ci jàmm lañ ko mën a defe kon nañ ñu jàmmal ba ñu génn ñun suñu ay idée dinañ mën a participer ci développement dëkk bi ci lu métti la ñuy dund lu tiis la ñuy dund lu dëgër a la ñuy dund lu dëgër la ñuy dund circonstance bu nekk ñu ngi koy ñu ngi koy dund ci euh, ay service d'hygiène contrôle économique ainsi de suite ainsi de suite bu yemoon si loolu rek ñu mën a wax mais y a trop trop de trop de laisser aller te à la longue euh, nit ki joxoo ko mu lekk joxoo ko moom mooy ubbi ay affaire am innover ay affaire am pour mën a jëmale réew mi kanam mais loolu bu fekkee ay xale ñu ngi koy def ñu war a mën a jàppale xale yooyu ñu réussir ci pacte boobu nga xamante ne si signé nañ ko ak état signé nañ ko ak nguur signé nañ ko ak dëkkandoo yi nga xamante ne ñu ngi mu ngi ak ñun ñun ñëpp xam nañ ne euh, maanaam suñu boo demoon tey laaj population danañ la wax ne la jaaykat jaaykat yi moo gën a am yërmande képp koo xamante ne mu ngi si si àddina kon war nañu mën a jàppale ci li laay war a sóol bàyyi ñu loolu noonu ñu ñuy def même ne su fekkente ne dafa am loo xam ne dañ ñu koy wax nañu fay leen lii par mois ñu fay ko sax ñu xam ne lii dañ ko war ak état ñu fay ko mais indi ay kayit yoo xamante ne ça ne signifie yee bindal la ko jox la nga dem xam nga ñu ñëw bu comme chaque instant bu ne ñu ñëw bu fekkoon benn yoon mais chaque fin mois kenn ñëw chaque fin mois kenn ñëw mais loolu dafa métti ci xol boo demul réussir ñu ne voilà on a investi beaucoup pour ci moom te mënul dem.

bu fekkoon day dem ci état ñu mën a na nangu ne lii mais mënuñu nag ñun di liggéey di leen jox di di leen fay te ñoom liggéeyaluñu dara bu fe du santé du du amul lenn benn apport boo xamante ne dinañ ñu ko indi du sécurité du lenn xam nga ki nga xamante ne bu bu fekkoon ne da nga ñëw tey ñu ne la euh, boo amee poubelle kenn du la laal mais munoo chaque jour heure bu ñëwee ñu jàpp la ci benn infraction munoo infraction munoo chaque jour nga ne infraction laa def. un policier bu taxaw ci mbedd bu oto ñëw mu arrêté ko ne ko def nga lii mais mënu ci dara service d'hygiène tamit même chose c'est le même cas dañuy ñëw taxaw dugg ci boutique xool xool bu ñu xamul luñ nekki billahi wallahi tallaahi gis ñëw nañ xool sama boutique amuñu lan lu ñu may jàppe ñu ñu bindal ma benn kii na ma Olf Time benn bonbon bu tudd Olf Time c'est écrit en anglais waroo ko jaay te man ma jëndee ko ci grossiste yi pour quelle raison mais am na yoo xamante ne ça ne se fait pas da ci addina bi lañ bokk ci société bi lañ bokk dañu ñu war a jàppale ñun ñëpp ay kii lañu ñoom seen i rakk ñoo nekk ci buddi gi seen i jarbaat ñoo nekk ci buddi gi c'est il faut ñu dawal yërmande boo ñëwee 3 mois ba 3 mois bu fekkee ne dañ ñu dañ ñu réglé loo benn kii 3 mois ba 3 mois ñu fay nangam ñu dem fay ko mu dem ci état bi ñu xam ne lii ci état bi la dem ñu ñëpp ñu jëriñoo ci mais jël jël ay 10 mille francs jox ko kenn mu mu jël dugal ci poosam loolu tamit c'est c'est c'est inadmissible. kaaraange amul benn kenn koo xamante ne mën na ne. man maa en sécurité heure bu ne yow yaay jéem a xool sa situation bopp rek mais saa su ne rek mën nañ la attaqué parce que attaqué ñu ay ay 3 heures du matin de 11 heures 10 heures heure bu ne n' importe quelle heure bëccëg sax dañuy ñëw di la fekk la fi nga tëj ñu tëj sa boutique fekk la ci biir nangu li nga yor dem seen yoon mais loolu fuñ ko teg ñun dans quel monde sommes-nous nag man. nit ku nekk bu amee loo xamante ne am na lu la naqari te mënuñoo def leneen lu dul loolu il faut au moins ñu won population bi ne ñun kat on est amal nañ njëriñ askan bi kon askan bi force ñu delloo ñu njukkal force ñu delloo ñu un peu plus de respect loolu dong moo tax ñuy def grève boobu mais du lu ñu arrangé ñëw mi nga xamante ne da ngay ut sa xaalis di def sa poste mais kooku bu boo demee bu ne da ngay grève mais c'est parce que xam nga ne amatoo amatoo choix mais le choix nag il faut nga attribuer ko wala nga allouer ko benn côté lii moo tax ñu war a def ñu war a dem grève pour deux jours wala trois jours. Babacar Diakhaté euh, commerçant la euh, boutique la à Thiès. Euh, nëbutuma nag ñu bëri xam nañ ma mais nag euh, ñun boutiquiers yi dañoo am lu ñu metti loo xam ne si ni amuñ fu ñu koy jooyee te man maa ngi euh, posé question trois ministères yi muy ministère de la santé ak ministère de de commerce ak ministère de l'intérieur ba xam ñun boutiquiers yi chaque mois amande yi ñuy dagg yoo xam ne si teguñ ko fenn ay dix-huit mille ay trente-six mille yooyu ba xam ci état bi lay dugg wala nu mu nu mu demee noonu. loolu daal ñun ñoo ngi laaj ay ay questions yoo xamante ni bëgg nañu ñu répondre ci ba xam ñun suñu amande yoo xamante ni teewul chaque cinq cinq mois dañu wuti kayit médical 2500 te service seen sart yi ñuy teg donte matal nañ ko bu ñëwee teewul maanaam bu ñu bu ñu bëggee jàpp jàpp ñu te normalement ñoom waruñoo am affiche boo xam si ni lépp lu ñu lu ñu aaye wala seen i seen i norme dañ ko war a afficher ñun joxuñu ko ñu bitige yi wut bitig bu egg ñu la ah ñun que lii lañ demandé ci yéen ngeen wut ko ñu ko xasee wut am jàmm mais ñun xam kenn xamuñ lu ñu bëgg ñoom mbóot sax bu ñu ko fekkee sa bitig man la man la man la bindal kii ni la nangam. ñoo ngi sàmmanteeg lépp bu ñëwee sa bitig fekkoon poubelle lañ la laaj da ngay am poubelle fekkee bagage bu primé lañ la lañ la wax man ngaa moytu doo am bagage primé waaye mais teewul yooyu yëpp boo ko moytu ko bu ñu bëgg lee mën a bëggee jàpp jàpp la man nag nëbbutuma xam nañ ma

ñëw jox la kayit bu weex rek bind ci ay bind la 15000 francs yoo xam ne si ni amul benn foo foo koy foo koy jooyee métti na. ministre euh, euh, euh, directeur commerce intérieur directeur commerce bi maa ngi lay demande loolu ci cadre commerçant yëpp nag.